Bon, Par rapport à ces élections, Les six là. Bon, espérons que les six là, il y aura un septième à la personne de Bogan parce que je crois qu'ils vont se pourvoir en cassation. Oui, ils ont huit jours. donc, euh, la compétition est lancée. On connaît déjà les candidats. Bon, maintenant, il y a des forces en présence. Il y a des forces et des, et des faiblesses. Bon, je ne voudrais pas donner mon opinion vraiment sur yenn yi parce que ça encore faire débat dañ la faire la fa xam fétéo fa mais ce qu'il faut tout simplement savoir comme l'a dit tout à l'heure euh, vraiment je souhaite que surtout au niveau du Sénégal mm. qu'il y ait beaucoup de figures nouvelles au niveau des des collectivités territoriales parce que quand même euh, la présente euh, gestion là a que quand même maires ils ont failli à leur mission ce qui est grave c'est que y a de des missions d'audit a commandité te ba léegi waxuñ ci dara te maire yi moom tey bu leen doon audité en tout cas il y a eu des scandales fonciers terribles yoo xam am na ci dëkk bi te ñooñu tey je crois que ñi nga xamante ne ñoo ko def seen i gox goxaat population yi dinañ am au moins benn présence d'esprit boo xamante ni maire yooyu duñ leen reconduiraat loolu nag il faut que aussi ñu am une élection transparente et démocratique mm-hmm. parce que bu jëf yi jaaree ci yoon jàpp naa ne dina am liste indépendante dina am liste mouvement citoyen yu bari yoo xam ne dinañ émerger parce que aussi nag en un certain moment aussi les gens ils de certains pas de mais de certains hommes politiques ñi nga xamante ne tey ñoo nekk ci au niveau de certaines collectivités locales def fi ay njombe ci foncier bi je crois que ñooñu moom tey même def ci bëri ñoo xam sax Macky Sall daf leen reconduiraat te je crois que bu audit yooyu ñu say ñu commandité woon bu ci bu ci appuyé wu yoon am na tey maire yu bëri yoo xam ne kenn du leen reconduire te loolu nag xam nañ leen maire yi nga xamante ne ils ont fait ici des scandales des malversations xam nañ leen encore bëri na ci te je crois que nit bu fekkee ne dañ la jox mandat nga dem ba mu jeex war nga taxaw say population nga wax leen ne lii lay def lii lay def mais on a remarqué que beaucoup de maire se sont enrichis beaucoup non c'est vrai mm-hmm. gis nga yenn xërti xërti yu métti ya ngi si yëpp ñu ci bëri enrichissement dong lañ bëgg beaucoup d' enrichissement illicite am na ci maire yi te li ma wax nii je pèse bien moom moo xam ci lu bare baree bare am na ñoo xam ne ba ñu dugg ci maire yi ñaari dërëm daanaka topp leen tey am na ñoo xam ne nii presque ay 6 7 8 kër lañu lañu lañu la ñu dajale loolu nag mënuñu wax ne li nga xamante ne moom lañ leen doon fay en tant que maire ci loolu la ñu amee kër yu bari yi ça dire quelque part il y a eu de la mauvaise gestion il y a eu des malversations il y a eu des détournements ñu xool ñi nga xamante ne ñoom ñoo baax ci ñoom ñu jël leen ñu teg leen man de j'ai dit que pour mon souhait en tout cas maire yu bëri yi nga xamante ne ñu ngi foon fii ñu reconduiraat leen je crois que ñu ñu en tout cas ñu investir leen

alors euh, nous sommes pris par le temps en 30 secondes s'il te plaît euh, euh ce mot de la fin wax fan ngay daanele. non mot de la fin li may wax sénégalais bu ñu bëggee un Sénégal où chaque sénégal aura un logement décent un Sénégal où la corruption sera maîtrisée où les valeurs de tolérance et d'ouverture seront célébrées. parce qu'on parle des collectivités pas de la présidence de la République. moom laa may ma collectivité boo boolee ay collectivité moo lay jox tey jii nii commune département <laughs> région ba dëkk bi. ñun collectivité rek tax ba collectivité nga wax léegi dama lay wax xam nga collectivité nan lañ koy tënkee ñun paix et sécurité muy jàmm ak kaaraange santé et salubrité wér-gu-yaram ak cet éducation et travail xam-xam ak liggéey écoute et assistance déglu ak taxaw pour waxaat lépp 30 secondes nga may day yaat damay déggu fenn rek ci xam-xam ak liggéey bi ni ñu ko fay waxee xam-xam bi le président Bougane Gueye Dany dafa ne ñi nga xam ne ay étudiants lañ di jàngi fac te du ñu yor bourse yenn saa yi seen parents yi pour ñu fayal leen école sax day jefe mu ne da leen di jël ñuy joxe des cours de renforcement ci yi nga xam ne ñun dañ koy gagné pour mën leen permettre ñi ci am somme yoo xam ne dina leen jàppale seeni kër nan la ñuy créer liggéey bi nga xam ne laay terminé cinquante trente secondes la pour respecter ko école yi am na ci ay table banc yoo xam ne day défectueux mu ne déedéet doo dem di ko uti da xool menuisier yi nga xam ne ñoo nekk ci koñ bi nga woo leen nee leen kaay leen defar leen lool fexe am na ay élèves yoo xam ne du ñu am budget bi comme ni ko seen yeneen morom di amee mu ne lan la bu boobaa uniforme yi ñuy defar tailleur yi ci quartier bi leneen li ci des nag bu ñu ko bëggee xam nañ gaaw valider liste bi incha allah ñu yeggali leen. <laughs> may nuyu Sénégal yëpp nag. <laughs> mais ko copain wax na donc euh, ci biir ci biir wax ji sànq euh, peut-être duñ dul déggoo. mais man fi ma doon waxee mooy ici on parle des des élections locales territoriales. dans le territoire il y a organisation. amoon nañ fi conseil régional dañ na mais ici pour man que la ville que la commune je le dis chaque jour on n'a pas besoin de maire bu fekkee dañ soxla maire bu takk écharpe ak tout le symbolique on n'a pas besoin de ça on a besoin de managers territoriaux nee naa est-ce que vous savez que acte trois bi bu ñëwee am na commune yoo xam ni dañu am compétence nouvelle mais problème ressources humaines de qualité boobu mu noo nekk dans une ville wala dans une commune potentialité ressources humaines yi nga am potentialité territoire bi méttiin maa ngi koy dégg maa ngi ko doon xaar ça veut dire territoire bu nekk ak particularité territoire bu nekk ak ay potentialité un manager comme tu gères une entreprise aujourd'hui une ville elle se gère comme une entreprise dañuy am li ñuy wax promotion regarde Marrakech da ngay ñëw ñu ne la le festival de Marrakech pour des trucs culturels et touristiques, ils sont parvenus à vendre leur mort. Aujourd'hui, on parle de la diplomatie internationale de villes. On va parler de Rio, on va parler de tel. Aujourd'hui, le Sénégal, développement, nous commencer Chikao. Ça commence à la base. boo Bogi Sénégal, élection est nii parce que dafa am ay enjeu de taille yu ci nekk. wax nga ko sànq benn enjeu bi nattukaay la ku nekk di nga natt sa bopp. xam fan nga féete mais beneen nattukaay bi Mahmoud Saleh la mu waxoon keroog naar bi lu mu wax ci xayma bi la ko déggee. ça veut dire phase test la Macky pour moom li tax sax moom mu impliqué wu ci au niveau national élection yi am na connotation locale mais am na une dose nationale parce que ça lui permettra d'avoir un baromètre pour mën a peese xool 2024 ndax day pousse wala day arrière tout cas au sortir de ces élections mm -hmm. on aura une nouvelle cartographie politique et ça permettra de jauger les forces et en présence merci dernier mot Euh, le commissaire Arona Sy moo fi nekkoon di mater les populations bi mu passé bi mu bëggee dem Nations Unies ce sont des Sénégalais vous et moi ñeneen ñoo bind daat ne kii mënu faa dem parce que li mu bàyyi ci réew mi waayam rafetut kon képp koo xamante ne yaa ngi fi également ce sont ces mêmes Sénégalais sont là pour mën a réagir également bis bu lépp jeexee parce que ku jàpp ne la neex da nga koy def bu nguur gi jeexee nga dem Nations Unies sa bamba naa sa loolu duñ ko nangu beneen bi nga xamante ne information bu ma am la tout à l'heure Barthélemy ñu ngi ko convoqué le premier euh, décembre décembre le président Macky Sall premier décembre du ko fekkaat Sénégal <laughs> une fois de plus du ko fekkaat Sénégal. day voyagé waat. toujours bu réew mi naree yëngu bu defee lu ci ba mais justement waaye gis nga li gën a garaaw ci mbir mooy lan on ne le pas mais espérons qu'un jour dina voyage voyage boo xamante ne du dellu si waat avion bi mooy dellu si luñ ko ko donc juste foofu laay tënkee di euh, nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa bokkaloon ak plateau bi yëpp débat d'idée la parfois mën na xaw a corsé mais l'essentiel mooy que l'on rest ci li nga xamante ne moom mooy logique respect politique te xam ne également Sénégal jàmm rek moo fi xaj waaye jàmm nag pour mu am am na norme yoo xamante ne moo koy tëral pour loolu mën a nekk loolu rek laa amoon lu may wax jërë ngeen jëf. Djibril Paye. vraiment triste c'est vraiment triste que dans le pays de Senghor qu'on puisse s'exprimer ainsi di wax président Macky Sall le du ñëw Sénégal n'est pas la Guinée Ousmane Sonko ne peut pas faire du Sénégal la Guinée te boo leen réglé wul ah di xam ne état Sénégal taxaw na pour régler leen. Macky Sall du sa morom mooy chef de l'État bi ñu fi toogee ba tey da ngay tudd tur na Basirou dañoo am ay doom am ay njaboot nit bu teewul sax amal kerse di ko tudd parce que mënul défendre boppam mais nag les Sénégal jugeront Sénégalais dinañu juger xam nañu seeni comportement nii rek ngeen mën a mel parce que seeni kilifa parti nii la ñu mel vous êtes que dans la violence et dans joxañ doomu àddama Euh, man li may tëjee rek mooy li may tëjee mooy euh, je pense que Abdoulaye Diouf Sarr dafa gérer ministère de la santé am ci ndam bu mu ko yoree ba tey loolu waaye ma ñëw xaaral ma euh, Cheikh Omar may ma ma conclure s'il vous plaît dama ne dama ne dafa yor ministère de la santé am ci ndam tant que le président lui fait confiance il va continuer de diriger le ministère parce que nag bu leen fàtte ne suñu constitution kenn la may waaye Serigne Saliou waxal ba pare je non non non boobu léegi yaa ngi comme quoi ndam ndam ndam mais Abdoulaye Diouf Sarr aussi on connaît ses ce qu'il a fait au niveau de la santé quand même il faut pas quand même qu'on nous bassine des choses comme si ñun on était des extraterrestres Abdoulaye alors nga doon joxe le mot de la fin on le ah. laisse terminer. Serigne Saliou je continue avec toi lan mooy échec bi. non non on va pas ouvrir du ñu ubbiwaat beneen débat non c'est une question lan mooy échec bi. s'il vous plaît doo ko wax parce que xamuloo ne amuloo exemple booy joxe ci échec. dama ne amul tache noire. ah. non. ah. bi ñu ko joxee ay milliards pour mu gérer pandémie bi. daf ko transféré jox ko ministère des des finances c' le seul qui. attendez tu sais bàyyi di. jël nit la interpellé sur un point. sur lequel il n'a jamais répondu. ma ne écoutez. bàyyi leen di taxal la interpellé sur un point sur lequel il n'a jamais répondu. dama ne le président Sénégal constitution bi lan la permettre mooy ah. président rek moo am. prérogative di nommer ou di dindi ministre. donc tant que le président lui fait confiance il va continuer. waaye attends je termine. Seydou. 30 secondes yow yow doo reeree sama kër dimanche ah. dama ne tant que non doo ko lekk tant que tant le président lui fait confiance. Oui. il va continuer sa mission. ndax il n'est pas de trop il est en train vraiment de conduire le système de santé ci doxalin bu rafet. léegi nag léegi nag. les hôpitaux qui n'ont même pas de gaz. léegi nag. vous avez tellement tué de personnes ici ngeen di wax. tache marron beige. Il y a, y, a, y, a, y, a, y a eu combien de personnes qui sont mortes ici parce que ça, il n'y avait même oui, pas de gaz. Même pas de gaz. La parole. Même pas plaît, de gaz dans les hôpitaux. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ah euh, Djibril, s'il te plaît. Ah, Mais moi, je n'ai pas encore parlé, hein, d'elle. Oui, je. Non, on vous laisse terminer on vous laisse terminer non non non échec te mënoo wax échec bi. non non on va pas. parce que yow loo xam ci Macky Sall ak nguuru Macky Sall wax nga ko. la gestion même cest dire de la Covid gaz bu gaz boo xam ne sax moom pour sauver nit sax amuñu ko. y a eu combien de gens qui sont morts ici parce que simplement dinañ fi ñëwaat wax euh, refaire tout ça s'il vous plaît Lamine Bara Gaye xam-xam weesu li ngay wax c'est pas le débat. ma ne c'est le déficit en gaz a été résorbé. Djibril non duñu dugaat duñu dugaat ci loolu ci loolu. amoon na déficit kon amoon na déficit Sénégalais yi. kon amoon na tu es un opposant tout le monde te ah, connaît. d'accord non ça moom même booy wax d'accord même booy wax ku jege non non je termine. s'il vous plaît waaw parce que lui il va pas parler non mais non. s'il vous plaît si je ne parle pas lui il ne parle euh, pas. Djibril s'il vous plaît s'il vous plaît Djibril. je termine dama ne Abdoulaye Diouf Sarr. les Sénégalais jugeront. c'est un homme de qualité. c'est un homme compétent. wane na ko kudd wane na ko ministère de la santé. d'accord doxal il a une expérience. contrairement à ce qu'il a dit il est il gère une mairie la mairie de Yoff et il est conseil municipal à la ville de Dakar. D'accord, très bien. Il a tous les atouts pour gagner ces élections-là. Voilà. Donc xam nga da nga gedd léegi pour wax. xam nga yow non tu n'as plus droit à la parole. tu tu non euh, Seydou du ma la tontu. non non en fait dama la laaj rek jibi dama la laaj est-ce que mi ngi siège non dañ la dagg léegi ma ne il est temps il fait son ma ne attendez il fait son travail de conseiller il fait son travail de maire. non dama ndax mi ngi siy. merci Djibi qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous fait. Qu'est-ce qui vous excite comme ça quand euh, on parle d'Abdoulaye Diouf Sarr C'est parce qu'il n'a absolument rien fait dans ce pays-là et puis on veut nous dérouler le tapis rouge. Alors, euh... yaa ngi mer Serigne Saliou bàyyil mer bi. on vous redonne la parole moi j'ai écouté bàyyil mer bi Abdoulaye Diouf Sarr ce qu'il a fait les Sénégalais vont juger. D'accord, très bien merci Djibi Djibi merci. Au soir, La ville de Dakar va revenir à Abdoulaye Diouf Sarr. D'accord, merci Djibril. Alors en, en 30 les, les secondes, Seydou, Seydou, en 30 secondes. Non, il faut me S'il vous plaît, Djibril, Djibril, s'il vous plaît. Djibril Bey, s'il vous plaît. Non, mais s'il vous plaît. Il faut il faut yow am nga crédit, yow am ci débat yooyu. Non, duñu ñëw di dugg ci débat yooyu, s'il vous plaît. 8 mai. oui oui oui Djibi merci ah c'est c'est voilà. tu es en fait waxuma ne Abdoulaye Diouf Sarr c'est pas un bon candidat dama ne dañu nekk ci pandémie te éventuellement. waaw non j'arrive no dama ne éventuellement suñ demee ba Covid am quatrième vague moom mu nekk candidat war a joxe ay mesures barrières. est-ce que loolu lu indi conflit d'intérêt loolu laa wax c'est juste pour une meilleure transparence du processus au niveau national mm. loolu rek laa jublu waxuma la c'est donc loolu benn dama ne loolu il faut que les acteurs politiques ñu waxtaane ko bala ñu ciy àgg mm-hmm. léegi pour mettre à l'aise tout le monde dama ne est-ce que moom du démissionner comme moom bu nekkee maire du nekkati ministre te bu nekk bu bu bu perdre non j'arrive no bu perdre tamit dañ koy dàq non en fait foofu laay waxee foofu rek laay waxee bon maintenant pour pour vraiment les candidats seen profil ñi nga xam ne ñoo seqal ku ci nekk mës nga am expérience gestion te ñu ngi ñu ngi ñaanal aussi le candidat de Bassirou xam nga gëm sa bopp la grande coalition gëm sa bopp mu mën mu mën a ñëw ci langue gi yàlla mën na ko dogal ah kon ñu ngi sant ñëpp vraiment di sant samay co co débatteur waroo fi woon a tudd Dame Diop nag yow sa deex <laughs> tu me provoques quoi

di faire un coucou à professeur ak euh, Omar Faye di leen wax ni que nu mbelaan ah namm na leen alors di bu baax a euh, Couture ah non yow libéré wu ma la sëñ Sall yooyu foog nga xaama libéré la ngay soog a dem di remercier